ma addu jëmale si audio buy dooy waar buy circuler si réseaux sociaux yi si boobule audio nag Aïta moo si addu jëmale ko si Lil Pro di koy xamal ni rek daa gis mu def photo Ina Diawara si Snapchat am moom Lil Pro si noonu Aïta di koy xamal rek ni ngir mu si boobule ojo ne ko rek da doon génn benn waay bu yor wa ilaa sax bu yàlla xéewalal Ina dem si moom di fay yàq deram moom Aïta tey naan rek xamul woon ni Lil Pro am na na relation ak genre gel yooyu euh, si noonu ay tane rek daa bëgg Lil Pro euh, wax ak Ina ngir mu génn si moom ndax rek moom Aïta euh, sekkul dara ak benn jigéen bi nga xamante ne ni day jaay boppam ba loolu weesoo Lil Pro addu rek si beneen ojo bi mu doon wax ak keneen di si xamle ni rek immeuble bu Kiné Badiane dëkkoon foofu la appartement ayta nekkoon donc mu doon nag ay de wax jokkalante ya nga xamante ni nemmeeku woon nañ ko si ay audio yu ñu fësaloon ci diggante ay dara ak Marie Louise bile yoon nekk ci diggante ay Aïtala Ina Diawara ak Lil Pro ñu siy rekk si weerante ci boobule audio nga xamante ne nii mi ngi ne xus si réseaux sociaux yi.